nii master office VDM bi jàkkaarloo ak foire bi ngeen taamu ngi seen bépp bureau ak jumtukaayu bureau ak informatique moo leen di may seen revue de presse master office ngir bépp jumtukaayu bureau. yéen kaay yi ñu ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf gaynde gi demoon ñibbisi na te dootu delluwaat ba mukk néewub esamaay di Jules François Bertrand Bocandé yegg si na démb ci ngoon mboolem yéen kaay yi demoon ci textu bi xëy ak ñun ca la ñu fa gis ubbi le quotidien démb ci aéroportu Ndakaaru journal bi nañu foo sànni mbàtt mu tàkk dafa feesoon dell ak aw nit ñëpp a demoon ngir textu ji jàmbaar ja le soleil nañu la fa tuuri ci ronxañ kenn nu mu toll nit ña dañoo jooyo jooy ba seeni kanam sadd yaram yëpp a dawoon Bocandé fukkeelu mujj mu doon ci teewaayu njiitu réew bu Sénégal di Macky Sall observateur ne ko tey ci ngoon la ci stade Demba Diop fa la ñëpp joxante daje ña daje woon démb ci aéroportum Ndakaaru ngir teextu ji néew bokkande libération nañu bari na ci ay kilifa ak i football kat ca ñooñee bokk na ci Alaaji Ousseynou Diouf Roger Mendy ak Ibrahima Kalilou Fadiga ci stade yéene kay ñu gis ca Malick Gakou ministre des sports Youssou Ndour xarit bu yàgg ak bokkande ak Karim Wade ak ñeneen Walfadjri Sport tënk wax ji ci yile kaddu bokk ton peuple te pleure maanaam bokkande saw askan ñoo ngi lay jooy populaire nañu teextu nañu ñaanluñu ko ñaanal ko jooy ko waaye ko fas yéene ko gunge ba mu yegg ba ca këram gu mujj ñu soog a dëpp ñu dëpp ñu it dellu ci observateur ubbil yéene kaay bi Baye Moussa ba di boro bokkoon ci garde corps Abdoulaye Wade police mi ngi koy wër wër gu métti yéene kaay bi nañu gile yoon du mbirum Barthélémy Dias lañu koy toppee waaye mbirum oto état bi ñu jële woon ca palais ba yóbbu ko ba Abdoulaye Wade di dem loolee la ñu koy toppee ndax moom Baye Moussa ba di boro la ñu teg loxo dañu ko fekk muy muté benn oto 4 x boo xamante ne ji bi moo ko moom ñi àndoon ñoom di Ousmane Ngom moom moome tey ci xët mu njëkku libération journal bi xëy dikk ñun ci rapport bi ñu def jëm ci marché passeport numérisé yi ak la ca xew dëgg yéen a kaay bi nañu Ousmane Ngom la mu ca def romb na garaaw fa garaaw yam fa la tàmbale ndekete nguurug alternance li ñu def ci réew mi caxat-caxatee àlal réew mi soog a dem moo ca gën a tuuti Ousmane Ngom la mu def ci ministre intérieur ëpp naa sax a wax nit di ko dégg ñu déglu ji ki Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké xalifa général Mouridi dénk kàddoom Serigne Bass Abdou Khadre mbooleem lu mu musta wax ci Abdoulaye Wade ci Macky Sall ak milliards ne day dugg tubaa sëriñ bi xëy na ko wax wa populaire ca ñëmu njëkke moo ñu jóg bëgg a gàkkal derub Touba sëriñ Bass Abdou Khadre na ñooñee dañuy sonal seen bopp rekk ndax seeni pexe du masa joy lu tax sëriñ bi ne ndax tubaab bi moo leen ëppoon ay pexe ëpp leen doole te fu ne jaar nañ fa ak sëñ Bamba lu ne jéemal nañ ko ko lu ne fexe nañ ko ko te fa ñu mujjee ak moom mooy ne ko mënuñu ci yow dara sëriñ bas ne ndekam ñooñee ñoo jéem ba tële kon keneen ku jéem ci tële ngay mujj waa populaire laaj ko ne ko yow sëriñ Bass Abdou Khadre ñu bëri dañu ne jege ñaaleeb Abdoulaye Wade nga sëriñ bi leen ci ndax sama diggante ak Abdoulaye Wade ba muy door booba fekkagul Abdoulaye Wade doon président de la république te li ñu bari fàtte mooy Abdoulaye Wade taalibe murid la te sama baay mooy sëriñam Sud Quotidien xëy dikk ak ñun ci leneen mu di mbiri téléphone appel entrant yeeg taxe yi ci gàlloon yéenekaay bi di Sud Quotidien ca loolee la xëy dikk ak ñun journal bi nañu taxe yooyee Macky Sall dindiwaat ba mu set wecc tey ji fukki fan ak juróom ci weeru mai ca la koy door ana lat moo yu bari la jëf jooje li mu ci ñàkk kenn xamul nu mu toll ne lu mu gàtt-gàtt mbiri appel entrant yeeg dogal bi ci Abdoulaye Wade jëloon ak taxe yiñ ci gàlloon Sonatel ñàkk na ca ñaar fukki milliards ak ñett kët dindi dogal boobee di njiitu réew mi Macky Sall mi ngi ci xët mu njëkk enquête dene kaay ci wàllu politique le journal bi dikk ak ñun Macky Sall ak ñi ko wër di kuréel ak banqaas kalaate gi ñu kalaate journal bi nañu coono la ñu indil Macky Sall ndax jamono ji moom Macky Sall di njiitu réew bu Sénégal dañu ko wër ndomba wër ndomba ku ko wax xel dem ci lambo ji ñu seeti mbër yi ak ca la ñu nekk triple di doomi dubalees Balla Gaye 2 moom la sunu làmbu xëye tey ji kaay bi topp ko ba ca Gàmbi nga mu demoon nangu ci moom ay kàddu la mu wax ci xët mu njëkku yéenekaay bi di sunu làmb moom Balla Gaye 2 moo di kombaam diggëm ak Eumeu Sène loolee munta ñàkk Balla Gaye 2 di Triple Less doomi dubalees ne Eumeu Sène daan na ma benn yoon waaye na ko leer na ca la yam ndax du ñaar koppar yu bari yu ñu ne da koy laaj promoteur yi moom Balla Gaye 2 la mu ca tontu moo di làmb dafay dox ndax kii di Mohamed Ndao Tyson ba mu fi laajee fanweeri million ñu bëri dañu ne waa ji dafa dof Balla Gaye 2 ne moo di tekki ngemb laata muy sàppi ndax bëggul nekk ci làmb ji di takk ngemb ba keroog muy am yenn at yi rakkam moom Balla Gaye 2 di Sa Thiès ak rakki Eumeu seen di Khadim Ngom ñoom ñaar ak seeni mag la Leewtoo yéenekaay xëy ak ñun tey jile rakki Balla Gaye di Sa Thiès ak rakki Eumeu seen di Khadim Ngom seen i mag mas nañoo dégg muñal waaye ñoom ñaari rakk yi ba léegi kenn daanoogu ci kenn musta dégg ci ñoom muñal li ma dul muñaale ak yéen mooy li nekk ci xët mu njëkku la Sénégal ndekete élèves yi nga xamante ne ji ñoo ngi leen di wutal ay benn session ki ñaari session ngir dawal leen année blanche ba ñu mën a defi examen ami li jaasa ñenn ci élèves yooyu taluñu ko ubbil la Sénégal ay élèves yu nekk ca lycée Lamine Gueye ay élèves yu nekk ca lycée pédagogue ay élèves yu nekk ca lycée moderne de Dakar ay élèves yu nekk ci lycée ba ca Parcelles Assainies di LPA élèves yooyu la tax ndekete te bëgguñoo defi examen mooy dañu koo tàllul journal bi nañu defuñu dara lu dul dem ba ca appartement mixta ya nekk ca ginnaaw stade Léopold Sédar Senghor luye fa benn appartement fay ko ñeenti junni daje fa élèves ya ñu ca bëri ay mineur la ñu ndax seeni at fukkeet ak juróom-benn la doore ka ca mag ñaar fukkeet la am ci appartement yooyee la ñuy ku ca nekk ca ñoom boo tàggoo say parents ne da ngay jàngi dem viré ci appartement yooyee nekk fa ak say gaa góor ñeeg ñi di jaxasoo di siim seen mari ngaañ ñi ba ji élèves yooyee ña nga mujj ca loxoy takk der ya may laaj ndax deux sessions yi ci examen yi dana doy élèves yi.